Serigne Mbaye Sy Mansour bii dafa dem dëkk bu ñuy wax Palmarin fii ci Mbour am fa jibarkat bu fa nekk mu jël xaalis bu bare bu bare jox ko ni ko xam nga lu ma bëgg ne ko ah benn doomu Serigne Babacar ci kaw suuf benn sëtu Serigne Babacar si bu mu taxawati ci kaw suuf ci moment boobu ci la Pape Malick tam ñu pare nag nit yi mën lañu jëm si ndax lu ne xam cosaan bi dafay baax mais xam nga lu ci am solo mbokk a ngi toog fii bu ñuy wax Abou Bakr Dia di doomu góor gi Ousmane Dia moo daan ànd ak Chérif Tahir moo gis mam Habib si benn rakku mam elaja Hadji Abdou si mam Habib wax ko moom Abou Bakr ni ko waxal Moustapha ni bu mu bu mu ni ko ndax mag ñi kenn toogatul ndax yàlla ak moom mu ni ko te boo demee nga wax ko ni ko dese na nangami at ci dundam ma defe ni kan nag ku yàkkamti demal ca bàmmeel ya xaar ñu du dëgg waxin la rek c'est l'éternelle répétition de l'histoire inna nahnu natarabbasu bihi raybal manuun góor gee ko nettali ñi daan dem ba duñu ubbi seen kantin di jaay ñu ne leen lu tax ñu ne fekk yonent bi du dund rek dootuñu tal dara na fi jóge rek loolu du fi jóg bu ko defee kon nag ay ndeysaan fatan aasha mahmudan wa mata muhammadan fa aatayta lil aishi qadran wa lil mawti miqdaaran azima waaw